إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom seede na moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu bi seede na muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jaamam bi mu yónni woon ci ñun ngir mu jàngal ñu nuñ koy jaamoo borom boobu moo ñu wàcceel ak téere di alquranul karim téere boobu ñëw ngir suñu texeg adduna ak suñu texeg alaxira téere boobu la nga xam ne ëmb na ko mat na juróom benn junni ak ñaari téeméer ak lu topp ci ay aaya waaye aaya yooyu yépp aaya ba ca gën a màgg nga xam ne yayul ci benn jullit bu yàlla may xel lu dul jéem na fexe ba mokkal ko mbokk mooy aaya bi suñu borom wax ci ayatul kursi borom bi mu ne الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم mbokk loolu mooy ayatul kursi di aaya boo xam ni tudd nañ ko ayatul kursi ndax mindaafanu yàlla boobu nga xam ne mooy kursi nekk ci suufu arsh benn yoon la ko yàlla tudd ci téeréem te mi ngi ko tudd ci aaya boobee mbokk aaya la boo xam ni mbiram màgg na lool bokk na ci saxaaba yi mokkaloon alquran jamono bi yonent bi di dund ku ñuy wax ubay ibnu kaab yonent bi daje nag moom na ko waaw ay ubay ndax xam nga li nga mokkal ci alquran ban aaya ci gën a màgg mu ne ko loolu day yàlla ak yonentam ñoo xam te saxaaba yi noonu lañ doon tegginoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi baamu ko na ko waaw ndax xam nga ban aaya moo gën a màgg ci téeram yàlla bi ubay na ko ah yaakaar naa day mooy aayatul kursi yonent bi alayhi salaam fëgg dënnam ba na ko maa ngi lay félicité ci xam-xam boo xam ne yàlla def na ko ci yow ca kon mbokk mi ngi noonu mooy aaya bi gën a màgg ci téereb borom bi amma bu dee saar moom suratul fatiha mooy saar bi gën a màgg ci téereb borom bi loolu moo tax ba xadis yu bëri rot na di jàngale ana naka la ko jullit war a taxawe suñu xoolee dana dem ci loo xam ne nii juróom ñetti place yoo xam ne lislaam yoonal na ko fa mbokk jàng bi ngay jàng ayatul kursi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure boo jàngee ayatul kursi suñu borom dana ko wutal làmmiñ wutal ko ay tuñ mu nekk ca suufu arsh di sabbal yàlla subhanahu wa taala loolu lépp nekk ay tuyaaba ñel na yowm alqiyaama xadis boobu imam ahmad solo na ko albani nee na xadis bu wér la ay yéen mbokk jurit na ngeen xam ni suñu noon bi génne suñu bàyyi aadama ca ajjana di cheytaan mi nga xam ni mi ngi dund ba ila yawmi diin borom boobu subhanahu wa taala def na ko suñu nattu muy nekk ak ñun fu ne waaye bokk na ci loo xam ne danañu wattu ca moom benn xadis boo xam ne abi hurayra radiallahu anhu la yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam joxoon ay zakkaat yum daan wattu am benn waay bu ñëw ñëw di sàcc ci zakkaat bi xaaju guddi mu jàpp ko bi mu ko jàppee mu jàmbat ko ay coono yonent bi alayhi salatu abi hurayra bàyyi ko bi mu xëyee dem ci yonent bi yonent bi ne ko waaw sa waaju loo mujjee ak moom démb mu ne ah daf maa jàmbat ay coono ma ma bàyyi ko yonent bi ne ko ah dana dellu si de abi hurayra nee na sikk sàkk wu ma ne dana dellu si ma ëpp ko ca ñaari lu guddi ba mu ñëw ma jàppaat ko mu daal di may tinu lu ne mu def ko ma bàyyi ko ba ma xëyee dem ci yonent bi mu ne waaw loo mujj ak sa waaju biig ma ne ko ah ñëwaat ne na yu mu yàlla yónni waaye daal jàmbat na ma coonam ak nangam mu ne ko ah dana dellu si de ca ñetteel ba abi hurayra nee na dama koo jàpp poño ko rek ne ko tey moom ca yonente ba rek nga jëm ca yonente ba rek nga jëm ca loolu xam ngeen bu dee lam sàcc dafa yegg ci lañ war a dagge loxoom mën nañ caa sax dagg loxoom waa ji na ko kaay ma wax la benn mbir bu ma yàlla xamal mu ne ko lan la mu ne ko loo xam ne booy tëdd jàng ko seytaane benn du la jege ba suba di jot mu ne ko lan la mu ne ko mooy ayatul kursi heure booy tëdd jàng ko seytaane du la jege ba suba jot comme sahaaba yi dañoo xiroon ci aw yiw abi hurayra bàyyi ko bi mu xëyee ñëw ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi na ko nag naka nga mujjee sa waaja mu ne ah yu mu yàlla yónni li tax ma bàyyi ko biig day dane ma su may tëdd jàng ayatul kursi seytaane du ma jege ba suba jot mu ne ko ah tey day wax na la dëgg waaye nag mooy fenkat bu mag bi ndax abi hurayra xam nga kan nga doon jëflanteel ci ñetti guddi yépp mu ne ko déedéet yu mu yàlla yónni mu ne ko mooy seytaan mbokk xadis bi képp ku ko dégg wareef la ci moom mu jéem a jàng ayatul kursi waaye wareef la ci moom ngallawaay mu bañ koo fàtte fa nga tooge ci sa kaw lal ngallawaay na bokk ca la ngay jëkk a def ci say askar boole ca la nga xam ne mooy jàng ayatul kursi ayatul kursi nim nar a ñëwee ci kanam aaya la boo xam ne dañ koo fondement ci tawxid muy xamle suñu boroom ak nañ ko war a wéetale loolu day tax ba nelaw yooyu bu yàlla dogalee nga dee ca yaa ngi dee yaale wéetal yàlla ca ku dee yaale wéetal yàlla ajjana mooy sa wàccuwaay yal na yàlla defal ñu ko mbokk ayatul kursi mi ngi nii di aaya boo xam ne nii abi hurayra mi ngi nettali ne amul benn kër boo xam ne cheytaani dafa nekk ñu jàng fa ayatul kursi lu dul seytaane boobu dana dem yoonam loole da ngay gis ne al bayhaqi solo na ko ak xaakim bokk na ci la nga xamee ne nii ay askar yu ñu ko war a booleel mooy boo xëyee suba zikr yi ngay def ca ngalla way julit del tàmmal sa bopp ay askar yooyu def di ko def suba te di ko defit la nga xam ne mooy ca koor لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تيمير يوم سبحان الله وبحمده تيمير يوم lu mel ne astafurla téeméeri yoon loolee da ngay gis loo ca mën a def lu ëpp nga def waaye nga boole ca it te askar ya jàng ayatul kursi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn kuy xëy jàng ayatul kursi lu dul yàlla boole koog lu koy sàmm ba ngoon di jot amul lenn loo xam ne luy seytaane bu koy lor la wala lenn loo xam ne nii daf koy lor di ko yàqal diineem amul kenn koo xam ne ngoon jot na nga jàng ko lu dul yàlla boole la ak lu lay sàmm ba baa la nga xam ne mooy suba di jotaat ngal la way ngeen xam ni gàllaaj ji gën a wóor moom mooy loolu bal julit da ngay gis ne téeréem yàlla bi dana ko doy ci mu naan day takki ay béjjéene ki fettaawe ki bitéene ki lu kenn xamul ayatul kursi mbokk mi ngi nii loolu ñuy wax ci xiirulu àdduna bokk na la ci gën a kawe la nga xam ne nii yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ko borom xam-xam yi génne ko rawatina ko min annasai ca cheikh albani ne xadis bu wér la nee na képp koo xam ni foo jullee farata ba pare da nga jàng ayatul kursi lenn rek mooy tee nga tabbi aljanna xanaa lu dul ne da ngaa dee képp koo xam ne foo jullee farata ba pare jàng ayatul kursi booy dee ji tabbi aljanna yal na yàlla yombal ko ci ñun ay yéen mbokk julit ngalla waay xam leen ne bokk na ci turu yàlla yi gën a kawe loo xam ne boo cay ñaane yàlla nangu ko mooy la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ca ni yàlla tudd na ko ca baqara tudd ko ali imran tudd ko ca taaha borom xam-xam yi miin alquran ba ñu xoolee aaya ba ñëw ca baqara ali imran ak taaha ca nuru mooy aaya bi yàlla di wax naan allahu la ilaha illa huwa alhayu alqayum loolu it kon lum ñuy jàngal yonent bi nee na ku ca ñaan yàlla nangu la tey jii même bu doon da ngay ji ñaan say ñaan nga jiital la nga xam ne moom mooy ayatul kursi ñaan googee nekk na ñaan bu ñu yaakaar mu nangu ca borom ba subhanahu wa taala ndax la mu ëmb ñaari tur yu màgg yooyu nga xam ne mooy alxayu alqayum doonte ne mbokk jurit gis nañu kon juróom-ñetti place ngi noonu juróom ya mooy waxtu julli juróom ñaar ya mooy suba ak ngoon ci say askar juróom ñetteel ba mooy heure ba ngay tëdd ci lum néew néew julli di ko jàng ayatul kursi allahuma nag mbokk xam leen ne jàng gi day ngëneel la ci làmmiñ waaye nag la lay may xéewal ya mat sëkk mooy la ngay jàng nga xam lu mu doon la ngay jàng nga teewlu ko suñ borom kat bi muy wàcc téerim bi dacaa boole ne afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaluha ndax nit ñi dañuy yëpp ci jàng alquran rek ci duñ ko settantal wala boog seen xol yi daa am ak xomb boo xam ne moo ko tëj kon laa budde julit dem a xam lan la ayatul kursi di firi ay yow mbokk julit xamal ne li nga xam ne nii moom mooy ayatul kursi suñu borom mi ngi ko ubbeeg wax ji gën a màgg ju doomu aadama yi wax ci kaw suuf ca mooy la ilaha illa allah suñu borom ne allahu la ilaha illa hu yàlla kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom lépp loo xam ne dafa aju ci yaakaar ci toroxlu ci ragal ci sukkandiku ci dellu ci lum mën a doon kenn rek a ko yeyoo muy suñu borom jalla wa ala borom boobu nga xam ni moo dàkk boppam ne mooy alxay alxay mooy ki dund dund ak lépp lu aju dund di aj di am mbokk ki dund mi ngi dégg ku dund mi ngi gis mi ngi am kattan mi ngi bëgg mi ngi bañ mi ngi am yërmaande mi ngi mer loolu lépp mbokk da ngay gis la ca gën a kawe ci loo xam ne nuróowu ko ak kenn lépp moo daje ci borom boobu jalla wa ala looloo tax mu ne fa tawakkal ala al hayy alladi la yamut ngal la waay booy wékkoo ko yaakaar wékkul ci al hayy amma ke ñen koo wékku ci du yàlla ana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana ibrahim ana nuux ñoom ñëpp mbokk faatu nañ allahu nag mooy al hayy bi dal faat waaye borom boobu mooy al qayyum al qayyum mooy ki nga xam ne mooy kiy taxawe lépp lu mën a doon mooy taxawe asamaan yi ak suuf mooy taxawe lépp yow doomu aadama bi nga nekkee toquma niyu sa biiru yaay alqayyum moo la fa fekk taxawu la wëlbati la nga jaar ci lumbu deret jaar ci lumbu yàpp mu roof la ay yàq def ci yow ay bëtëki napp matal la ba nga mat mu génn la alqayyum moo lay taxawal moo lay màggal sa yaay bu yëkk alqayyum mooy ki nga xam ne mooy reesal saw yam saw ñam alqayyum mooy kii contrôler les centaines de milliards de cellules yi nekk sa biir yaram bu nekk alqayyum mooy alqayyum mooy taxawal loolu alqayyum boobu moo lay wërsëgal alqayyum boobu moo lay rey alqayyum boobu moo lay dekkal mooy ki nga xam ne laa yaxzubu anhu misqala zarra lépp lu mën a doon jalla wa ala mooy ka nga xam ne moo koy taxawi mooy alxayyul qayyum di ñaari tur yu màgg yoo xam ne heure booy ñaan jiital ko say ñaan yaa xayyu ya qayyum ay yow mi dund ay yow mi sax di taxawe lépp loolee ci la gën a màgg ca la bokk bokk borom boobu subhanahu wa taala bokk na ci gannaaw ba ñuy xamee ni mooy yàlla bi kenn yeewul ñu koy jaam alxayul qayum mu ne laa taaxuduhu sinatun wala naw yàlla moomu du gémmintu yàlla moomu du nelaw mi ngi tiim ay jaamam saytu leen amul xes ak kippi boo xam ne nii dana ko ñàkk tiim ay jaamam inna allaha kaana alaykum raqiba mi ngi noonu ngeen bàyyi ci xel bu baax am na benn waay bu nekkoon ci benn dëkk ci arab yi nee na am na ay jigéen yoo xam ne nii dañuy nekk foofu di jaay seen bopp bu guddi jotee ñu ne naama mawlaana ah guddi jot na suñu borom nelaw na mbokk loolu ak kéeféer la ko teg ci caay-caay suñu borom du démment suñu borom du nelaw la nga xam ne mooy ñeenteelu xabaar ci ca ayatul kursi ëmb na fukki xabaar ñeenteelu xabaar bi borom bi mu ne lahu ma fi samawati wa ma fi al ard mboolem li nekk ci kaw asamaan yi muy malaaka yi di jant bi di milliard de biddiw yi mboolem lu nekk ci kaw suuf doomu aadama nit jinne la nga xam ne mooy géej yi garab yi montagne yi bàyyi may la nga xam ne mooy la gën a tuuti ca la gën a tuuti lépp suñu borom moo ko moom keneen ku dul moom ab jaam nga loolu moo tax ba jurit war a gëm ne man jaam la ànd ak sama moromi jaam kenn dong may ki moom muy allah bi nga xam ne lahu ma fi samawati wa ma fi l ard mbokk borom boobu bokk na ci juróomeelu xabaar bi mu ne man da alladi yashfau indahu illa bi izni ana kan mooy ki nga xam ne mooy ñëw di ñaan yàlla njëkk ñeel beneen moroomu jaamam lu dul ko yàlla jox ndigal na ko ñaan ma njëkk ci sa moroomu jaam bi loolu it muy wone li yàquun diine qawmu nuux yàq diine yi ba yàq lu ëpp ci suñu diine mooy nit ñi jàpp ne am nañ ñu ñu war a doxale seen digganteeg seen borom di leen yaakaar ngir ñooñee man leen a xecc li ci kanamu yàlla mbokk mushrikuuna arab yi lii mooy erreur bu rëy bi ñu defoon loolu nag di li yàlla subhanahu wa taala gën a bañ mbokk yàlla doxaliwul kenn digganteemi ki jaamam maa ngi lay wax ne ba ngay nekk toq mani yu di spermatozoïde nga xam ne ay microscope ya gën a sophistiqué ñoo la mën a gis alqayyum mi nga la fekkoon foofu la nga soxla yëpp mu defal la ko nan ngay dem ba toll ne sa baay naan Moussa Ndiaye laa yaakaar ngir mu xëcc li ma ci yàlla képp ku ko def yàlla dox sa digganteeg moom loolu tax yowmal qiyaama mu ne naafiq yeeg yéefér yeeg mushrikuuna yi innahum an rabbihim yowma idin la mahjubuun ñoom de yowmal qiyaama lañ leen di xañ duñu gis seen borom duñu gis yërmandeem lu tax mooy bañ demee ba jàpp na am na kenn ko dox seen digganteeg seen borom looloo tax mbokk lépp lu ñuy yaakaar adduna ak alaxira ci yàlla dong lañ ko war a yaakaar man za alladi yashfau indahu illa bi izni borom boobu mbokk julit gis nañu ne dem ñu xabaar yi lii mu teg ci ne yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum xam ne lépp loo xam ne ni ngi nekk seen kanam xam ne lépp lu nekk seen gannaaw mbokk la nga xam ne mooy ñëw ba ila yawmi diin li fi amoon ba yàlla commencé su asamaan ak suuf su ko yàlla xamee ndax xamul li nga nekke aha kay wa ma taqul fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi suñu borom mu ne xam naa li leen jiitu xam naa li ñëw gannaaw loolu it muy wone ne loo mën a nekk yàlla subhanahu wa taala xam na ko loo mën a fas sa biir xol yàlla subhanahu wa taala xam na ko loolu moo tax ñu war a boole ragal ko ak doyloo ko ak yaakaar ko jalla wa ala moom rek borom boobu subhanahu wa taala mu ne mooy ki nga xam ne wasia kursiyuhu ay wala boog wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma sha doomu aadama yi amuñu lu ñu xam lu dul lu neex yàlla lépp lu waay xam yàlla ko ko xamal malaaka yaa ngi nii doon wax borom bi laa ilma lana illa ma allamtana e waay mbokk dama jëlale xam-xamu sharia waaye xam leen ne scientifique yee nekk ca nazar ñee nekk ci Russie ñee nekk fu ñu mën a doon ñii di dawal avion yi oto yi fusée yi laboratoire yi amul benn doomu aadama bu mën a xam dara loolu yàlla subhanahu wa taala moo ko xamal fépp fu jamono toll yàlla dana indi xam-xam jox ko doomu aadama yi ngir ñu mën a nekk ci kaw suuf mboole mi xam-xam ci yàlla lay dellu loolu nag borom bi jàlla wa ala mu ne du ñu am ci xam-xamam lu dul la ko ca neex te borom bi nee na wa ma utiitum min al ilmi illa qalila yéen ñépp nit ak jinne seen xam-xam nekkul lu dul loo xam ne nii lu tuutee tuuti la loolee mbokk ñu ah bàyyi xel ci loolu borom boobu nag ne wasia kursiyuhu samawati wal ard gën naa yaatu kurseem mbokk kursi bañ ko doon méngale ak arshu rahman mi ngi mel ne waa ji am benn pilion pilier bi dafay am fu ñuy teg ay tànk loolu mooy kursi borom bi nee na kursi boobu nga xam ne mi ngi ci suufu arsh gën naa yaatu asamaan yi juróom-ñaar yonent bi alayhi salaam ne suñ jëloon asamaan yi juróom-ñaar di ko méngale ak kursi dafa mel ne mi demoon ci benn désert bu yaatu sànni fa benn jaaro désert boobu ni muy ëppee jaaro bi noonu la kursi ëppee asamaan juróom-ñaar arshu rahman nag moo nekk ci kaw kursi ëppale ko nii nga xam ne noonu la kursi ëppee asamaan juróom-ñaar lu toll noonu la arsh ëppee la nga xam ne mooy al kursi borom boobu nag subhanahu wa taala ne wala yauduhu xifzuhuma moo ne loolu day li muy yaatu yaatu du ko sonal mukk wattu kam kay wattu mbokk yàlla moo téye asamaan yi yumsiku samawati wal ardi an tazula moo téye asamaan moo téye suuf mooy taxawal lépp ndax yow doomu aadama yi doo doyloo sa borom wattu la ah kay boo doyloo yàlla yàlla mooy alxafiz dana la wattu la gën a màgg ci lim lay wattoo wattu la ci cheytaan yi ba duñ yàq sa diine wattu la ba doo dem ci lu xaraam waaye wattu la sa bakkan wattu la sa njaboot wattu la la nga xam ne mooy sa alal loolu mooy la nga xam ne moom la ab julit war a doyloo waaye nag xam na it yàlla mooy alxafiz amul lenn looy wax amul lenn looy jëf lu dul ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala boobee mi ngi koy wattu ca dara du ci réer lépp mi ngi lay xaar yowm alqiyaama suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon nañu ay waaye kenn ci yéen bu génnee këram di dem na wax allahuma ahfazni min bayni yadayya wa min xalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa audu bi azamatika an uxtaala min taxti ay yàlla yal nag ma wattoo sama kanam sama gannaaw sama ndeyjoor sama càmmoñ sama kaw yàlla yal nag ma musal ci lenn lu may bette ca la nga xam ne mooy sama suuf lii mbokk da ngay gis ne moom la ah loolee ayatul kursi boobu di junju borom boobu nag tëjee ko ne wa huwa al aliyu al azim mooy al ali ca jëmmam ja jàlla wa ala ma nga ca kaw arasham ba dara nekkul ci moom ci fenn bokk na pas-pas yu bees yu bon yu am suñu réew ay nit ñu naan yàlla ngi fépp mbokk déedéet yàlla ma nga ca kaw arasham ba loolee la jurit war a gëm mooy ki kawe ca jëmmam ja mooy ki kawe ci noteelam nga mooy ki kawe ci kattanam nga amul dara lu ko të waaye mooy al azim moo màgg màggaay boo xam ne ca dara jaam ya moo màgg màggaay boo xam ne nee na wal ardu jamian qaddatuhu yawma alqiyamati wassamawati matwiyatin bi yamini borom bi nee na asamaan yi juróom-ñaar ak suuf ak nëpp la koy def yawma alqiyama yonente bi alayhi salaam ne ne dafa mel ne kenn ci yéen ko ëppoon ñett juróom-ñaari peppi dugub noonu la asamaan yi di mel ci loxo borom bi kon màggaayam kenn mënu koo takk fenn lii mbokk jurit mooy ayatul kursi bi nga xamee ne nii bokk na la gën a màgg lu ñuy jàngal mooy tawxid képp koo xam ne wattoon na ko di ko jàng suñu borom dana ko wattu suñu borom dana barkeel ak dundam nañu fexe di ko jàngal suñu njaboot nañu fexe di gëm la nga xam ne moom la ca yàlla di woote nañu fexe di wóolu suñu borom yàlla ci suñu diggante ak moom lii day képp ku ko def boole nga texeg àdduna ak texeg alaxira yàlla na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko ca jagleel ko bépp julit الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو الحلي وهو العلي العظيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله إنك أنت العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين